société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec bi simila gouvernement bi Macky Sall gontoo taxawal démb la yéenekaay yu baree bari xëyee bokk ci ñoom réew mi quotidien mi seetlu ne nag la ñépp doon xaar amut ndax yéenekaay bi nee na coppite yi taxu koo bari noona ñu bari fan nekkoon juguñu fa lan leen doon defloo it soppeekuwut les mêmes têtes et les nii la ko yéenekaay bi gisee jaaree ci xalim asan Assane Samba ñi dugg bees ci gouvernement bi it yéenekaay baa ngi leen di lim Oumar Youm la ba mi ñu dénk forces armées Antoine Mbeng mi ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportières Thérèse Faye dugg na moo jiite woon FONGIP tey mooy ministre du développement communautaire de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale Modou Diagne Fada mi jiite woon Sonacos réew mi quotidien nee na moo jiite tey ministère des collectivités territoriales de l'aménagement et du développement des territoires Lat Diop ma ne woon ca LONASE yéene bi ne dénk nañu ko ministère des sports El Hadji Momar Samb bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar seetee tey mooy ministre bi nu toftal ci garde des sceaux ministre de la justice mu yore wàllum bon gouvernance waaye itam promotion des droits humains Daouda Dia ma ne woon kes ca assemblée nationale réew mi quotidien nee na Macky Sall tabb na ko ministre de l'élevage et des productions animal Saliou Sow mi kenn xamutoon mu ne woon ci ruqam réew mi ne Macky Sall génnee na ko fa tabb ko ministre auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité de proximité ak protection civile gouvernement bi réew mi quotidien itam nee na am na ca ñoo xam ne dañoo jug fii rek dem toog fee bokk na ci Aïssata Tall Sall mi ñu dénkoon affaires étrangères te tey mu yore wàllum justice Ismaïla Madior Fall ma yoroon justice réew mi ne moo dem ca ministère des affaires étrangères wuutu fa Aïssata Tall Sall kon doonoo weccoo place ñi ñàkk seen place nag réew mi nee na ma Talla la mi fi yoroon collectivité territoriale ak Oulimata Sarr mi ñu fi dénkoon wàllu koom ni ki Sophie Galadima mi yoroon wàllu pétrole pétrole gam yoroon réew mi ne ci loxol Antoine Diome la tàbbi Macky moom daa taamoo wéyal Sud Quotidien moo ni gisee ne Macky opte pour la continuité ndax yéene cabinet wut las ne ay coppite bu amee it yu ndaw la ci yéenekaay bi Amadou Ba maye muuñ gu ndaw fësal lim bëgg ci gouvernement am mu ne gouvernement de combat la la tribune ne ko waxal kay gouvernement bu ñëw ngir doggali sénégalais yi vox populi ne ko maa lay wax gouvernement bi gouvernement lu mu yéenekaay bi nee na gouvernement la buy waajal élection présidentielle bi nu mal équipe bi yéenekaay bi nee na dañu koo natt taaye ko sur mesure ngir mu xeex xeexub 2024 bi ñu dëkkmal le quotidien ma jambal jaañ bi ni ku koy baa ngi nii ci biir yéenekaay bi Amadou Ba naan gouvernement de mission et de combat laa taxawal Antoine Diome Ismaïla Madior Fall ak Aïssata Tall Sall yéenekaay bi nee seen taxawaay ci gouvernement bi soppeeku na Mactar Cissé it yéenekaay bi ne delsiwaat nag doole ndax tey mooy directeur de cabinet bu président de la République Macky Sall Macky Sall mooma taxawal na état major électoral am maanaam xeexu 2024 bi ña ca nar a gunge mbaa ña ko nar a xeex yor yor bi na ñoom la ko ne a jóg gouvernement yeewi askan wi maanaam combat bi combat bi le témoin nee na bee ko tax a jóg loola opposition bi mel ni ku ko xam ndax ca vox populi ña ngay wone seen ñàkk yaakaar ak tiitangeek njàkkare gi ñu am ci paluk Sidiki Kaba ci ministère de l'intérieur Moussa Taye bu taxaw ci yéenekaay bi ma nga naan directoire de campagne bu Amadou Ba kay moo nekk nii Sidiki Kaba moom wóolu wunu ko benn yoon mi Mimi Touré naan ko yaayay ndax moom mi fi jiite woon gouvernement bi nee na tabbu Sidiki Kaba ci de l'intérieur du signal bu na moo war a toppatoo élection yi dëkkmal Mary Teuw Niane ne njuuj njaaj gi ci wàll politique moom fi ne nii daa laal plafond sës na rek ak gouvernement politicien bi ñu fi taxawal Abdourahmane Diouf mel ni ku yedd kawaar Sidiki Kaba naan ko bul def rek lun la sant nga def ko jëfandikool sa devoir d'ingratitude maanaam bul jàpp ne ameel nga kenn lenn ba tax fu mu rëdd nga jaar fa fi gouvernement bii nar a jaar ci wal politique ak ay jubluwaayam ay analyste politique ña ngi koy ko dëggal ci booba lépp yéen kaay di vox de calcul yu ñu nemmeeku ci remaniement ministériel bi Macky Sall amal démb Macky Sall mooma Walf Quotidien na ay pion wam la déplacé yëkkati bi teg fee yéeni kaay bi gis ne ñeenti ministère yu am solo andi na fay coppite coppite bu ko defee it defeewu ko lu bees ndax lu màggat la jël moom Macky Sall bëgg koo defee lu bees ci gët yéeni kaay bi di l'info le soleil moom gis benn équipe ak ñeenti jubluwaay di ay orientation nii la jantuk aan gi xëyee ci gouvernement bi ñu taxawal démb nenu juróom benn yu bees dugg nañ ca ñett rocceeku ministre délégué yokku na gouvernement de mission et de combat it la Amadou Ba di wax ca booba lépp yéene kaay moom Amadou Ba moo fës ci xët gu njëkku bés bi la jour yéene bi di fàttali ñeenti weer kott la bi lépp gouvernement am ngir yay askan wi teg dara ci seen loxo lii quotidien moom gis ne gouvernement bi ko woon amu fi njariñ ñi gouvernement bi gën a amal njariñ l'observateur booba jamono ma nga naan mooy gox yu Fatick Ziguinchor Mbuur Matam ndax dañu leen a yokk doole jëm ci élection présidentielle a ci la l'observateur xëy ak recours ba mu yóbbu ca tribunal bu Sigicoor Sigicoor googa vox populi nee na démb nelawuñu danoo fanaane waajal layoog Ousmane Sonko gi am tey ca tribunal ba ngir ñu dabu seppi gi nu ko seppi ci liste électorale yi vox populi naan boobaay sànni tàccoom nag waaye ci les échos maître Ciré Clédor Ly ma nga naan procès bi lu mu am am solo du mooy jeexal wax ji waaye lanu fa war a wax tey di seeni argument avocat yi neenu lu dëgër këcc lu kenn mënta teggi Habib Sy moom teggi na boppam ca bopp Yewwi Askan Wi candidat gi bëgg a doon ci élection présidentielle bi nu dëkkmal bés bi nee moo ko waral waral Cheikh Tidiane Yumbu pur wuutu ko fa moo jiite tey conférence des leaders bu yeewi askan wi askan wu Sénégal jafe-jafe yi nuy jànkonteel ak facture yu cher yi ci la maître Massokhna Kane xëy di wax ci réew mi quotidien fësal fa meram ci Sénélec mi mu jàppee catastrophe national njiital SOS consommateur di ñaawlu yokkute gi waaye lam gën a ñaawlu mooy tekkaaraluk nguur gi lànk wax dëgg askan wi maître Massokhna Kane it ne askan woowa njëgu dund réew mi quotidien dëgg mooy alcool beeg ni ko soxna yi jëfandikoo yéene kaay bi ne ab atelier ngir yokk xam-xam journaliste yi ci wàll wi le réseau national de lutte contre l'alcool amaloon waaye lafa génne daal mooy jëfandiku gu jéggi dayoo gi ndaw ñi ak soxna yi di def ci alcool di sàngara laas mel ni ku naan ko mooy yow xanaa yéegoone soxna yi danoo xeep sàngara si léegi ña nga ca dorog ba yéenekaay bi jox kàddu coordonnateur centre Jacques Chirac di Cheikh Diop mu ne soxna yi ni nuy jëfandikoo dorog daa yokk ba yegg ci lool ndax libération ne na jëye amatina ca daala ab gaal gu bawoo Cambérène de ñaar fukki fan ak juróom weeru septembre bi nu weesu yaboon juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti nit lanu walloo ca daala waaye ban leen di wallu fanweer ak ña ca des ñëpp bi ne na ca l'hôpital lan faatoo nanu faatoo ñoom ña des ca ga ñenn ca ña ñekkaloon te nu mucc ña ngi koy nettalee nu daw yaram ci biir yéenikaay bi di nu yëgal itam ne beneen jéya mu dib gaal gu bawoo Kayaar te ñu bari ñam yaboon des ca ndox ma ña demoon teen war leen a delloosi ak nan leen nar a delloosee loolaay li jaaxal innocence tab njaay may fësal njàqareem ci yéenekaay bi di l'info yéenekaay bi di observateur di nu yëgal booba jamono ne am na juróomeelu nit buñ teg loxo ca bus ban taaloon ca yaraax te ñaari nit ñàkkoon ca seen bakkan papa sow mbër ma woon bokk tey ci jàmbar production woowale waxtu ca woowale yéenekaay ma nga ñuy nettali dundam gu bees gi di dunduk promoteur yemook sunu làmb nan ñu promoteur bi di Luc Nicolaï tëgg na làmb ji ñépp doon xaar muy gi a dox ku ne ca ñoom di waxee moroomam naka la koy def bu ko jàppee réew mi quotidien moom ma nga ñuy wax ci tirage au sort bi nar am tey ñeel kaan Côte d'Ivoire 2023 yéenekaay bi becci la mën a neex ak la mën a naqadi ci sunu gaynde yi gaynde yooya di champion d'Afrique en titre ana ñan la ñuy dajeel wii laaj la stade samp fii ak mu di ko sempi nekk leen ci jàmm ba ëllëg incha allah société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue